Rayma pak pak papak Rayma pak Rayma pak Rayma pak pak papak Rayma pak uh, MCEG Ila Arabica uh, ci couleur urbaine version bêta ok ba tey dañuy wéy suñu programme tey looloo waral ma invité uh, King Afro léegi dañ koy bàyyi mu mu présenté wu bu ko defee Senegal, wax ñi day faral di c'est Connection TV Sénégal tey moom laa dal yeah merci beaucoup Taf maa ngi nuyu uh, sama yaay di nuyu sama papa uh, képp kuy bëggee Taf Connection TV yeah uh, aussi di nuyu sama benn xarit bi naan Aliou Aliou Faye yeah di nuyuwaale tamit sama fans comme ni ma leen ko waxee King Afro la ñu naan ko Michael léegi dama bëgg nga présenté wu carrément la moo tax ñu lay wooyee King Afro tur fu mu jógee. yeah King Afro bi. bo gisee mat tuddee ko sama bopp bi c'est parce que ya. damay def afrobeats afrobeats lay bëri lu may def ya. although damay rap damay def hip hop mais afrobeats mooy sama musique moom lay def lu bëri te aussi king bi tamit mooy buur mooy ya, may bour si afrobeats bi loolu waral influencé wala kan moo la influencé bëgg a dugg ci musique hip hop yeah musique musique eh, dafa nekk loo xamante ni dafa bokk si man do si dama ko bëggoon trop trop trop yeah am naa si lool ñoom laa doon àndal dem concert ak apa yooyu noonu damay ànd si Epolisa dan sax dem si fesco yi New Year ñu yéegal ma ci kaw ma yeah ñu kontaan moo ma dugal eh, si musique yeah damaa Ibu nak apa? King Afro eh, fan nga def maanaam sa ce parcours de musique euh, fan la tàmbalee euh, fan fan la tàmbalee euh, e, kii exactement. yaa musique maa ngi ko commencé depuis gambi yeah Gambie benn ville bu ñu naan Wulinkama foofu laa starté sama musique foofu laa commencé musique yeah dan dem si école yi école bu am fête rek dañ fa dan dem mak samay gars yi ñoom it maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yeah aw ma seen fay vraiment ndax ñoom ñoo ñoo tax ma gëna dugg ci musique parce que dañ ma daan ne king man nga ko demal bo démé di ci gis sa bop té légui ñu ngi sant yalla daal alhamdullilah ndax son bu ma ñëpp dinañ ko bëgg. Euh, euh, king Afro ak euh, manam sa évolution sa évolution si musique bi nga duggé ci rap ba légui manam ñaata son nga jot gëné en plus tamit sa carrière sa carrière musicale nan la sa carrière musicale nan la yeah sama carrière bi underground artiste la fu mu toll nii maa ngi si underground bi ba léegi mais ñu ngi ñaan yàlla tamit ma dem ci kaw yeah euh, pour l'instant nii maa ngi ak euh, huit titres yeah te aussi euh, ñu benn projet boo xamante ne nii nëbal sa kanam la tudd. liggéey mën yi. nga xam ne jot na jàll. waaw am nañ Ray Ma Pac génn naa mu ngi cool. Euh, génne na waa euh, PKS euh, hmm. tamit to te aussi benn politicien bu ñu naan Baye Ndiaw Thiam moom it génne naa ko son génne naa Sénégal nice ma ak sama benn copain bu ñu naan Lil Woza ma ngi koy jaajëfal bu baax a baax génne naa son ak xës tamit am si xës moom koy jaajëfal bu baax baax boobu ñu ko naan bato dem bato costé son boobu tamit génnoon na te aussi jàll di luar sana moo ak xës ñoo bokkoon team ñoo bokkoon def do te ñoom ñaar yëpp def nañ sang jaar-jaar bi nga commencé musique link link yi nga xam jëng ko am bon ci loolu la bëggoon nga ñëw ya musique eh, métti woon na lool sama côté eh. vraiment parce que eh, dama daan joggé PKS di pass be Dakar di dem génne ji ay son xam nga nga duggal ko YouTube di partager li ngay bi ñeneen ni duggu ñeneen ni duñ ci duggu franchement affaire bi dafa métti nekk underground artiste moo métti si jéb boobam taf mais léegi moom ñu ngi sant yàlla ndax son bu ñu génnee gars yi dañ koy bëgg gaa yi dañ koy sinap macha allah daal kon ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax ñu ngi si gis daal avancement ndànk-ndànk. Hmm. li mu bëggoon xam mooy ba xam euh, euh, king ba xam euh, kii lay def solo lay def wala dafa am ñu moom ñu nga xam ne am na ñooy linkal wala am na ñooy àndal ba xam sa groupe. yeah am naa am naa groupe Eh, ku ci mel ni Aliou mu ngi ci eh, Maurice yeah ñoom daal ñoo nekk sama gannaaw franchement yeah ok mën nañu wax que ni kon eh, King Afro am na staff non actuellement actuellement amaguma staff amaguma staff yeah mais maa koy ut daal ñu ngi si liggéey incha allah bàyyi nañ lépp daal si loxo yàlla waaw. ok mais loolu est-ce que est-ce que c'est normal est-ce que loolu loolu c'est normal en tant que artiste léegi yow nga bëgg a génne son Euh, nga def euh, partage sur réseaux sociaux yeeg yooyu yëpp est-ce que tamit euh, laajul tamit nga am staff bu nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw pour mën la dimbali ci liggéey bi. non actuellement actuellement. yoon la pour ma am staff. léegi dama bëgg xam li nga xam ni jot nga koo dund si musique bi comme côté parents yi ba xam mi ngay dugg si musique yi sa waajur yi bàyyi nan la ak tamit noo def ba imposé wu boo nga nekk si musique bi. non bu njëkk bi moom sama yaay daa bañoon daa bañoon carrément ne du def musique. mais euh, damaa mujj waxtaan ak moom entre yaay ak doom ñu waxtaan si euh, xam ma xamal ko ne euh, vraiment musique gis naa si sama. réussir dama ko yow commencé def musique ba léegi est-ce que comme diwaan ba nga nekk am na ñu nga xam ni ñu ngi lay jàppale walla bokk chaque fois bu fekkente ne organiser nga dara ñoom seen loxo day dugg ci biir. waaw actuellement am na sama yenn xarit sama yenn couleur yu fa nekk. yag nañ lol fofu non ca Pekes bima ma fa démé ba légui euh, dalal nañ ma té aussi euh, biñ xamé né ci si musique bi laay yëngu tamit ñu may jappalé dañ ñu nekk sama gënaaw tamit aussi ndax buma tégué concert Pekes ñom ñay defar lépp organisation bi yépp ñom ñokoy yor ñamit ma ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax ya ku ci melni dam saw Sow Mara ay Sëñ bass ak yoy nonu ay bayri Sow ay ya ak Aliou fay ay ñom Maurice ñom yépp ma ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax franchement je ma seen fay. yow est-ce que vous comme supposons euh, promo produit et puis sa promotion souvent nan nga koy single wala euh, je crois album ah, je crois. non non. ok les single yi nga a nan yeah single yi euh, bu génnee rek dañ koy YouTube yeah ak y platform Facebook Instagram. ya aki bore bore dadeng si dugal lep ya senggol begene deng ko fay dugal ya ak sama produit bi tamit da koy dugal momit eh, mang koy jaajefal bu baaxa baax met def ci ay tv mi ngi commencé def musique nan nga def ba imposer fofu non est ce que fofu non réellement rap mi ngi dof fofu non est ce que gaay gëm nañ rap fofu non actuellement gëmuñ ko nak eh, gëmuñ musique bi fofu pekes mais eh, ñun artiste yi ñoy def pour ñu gëm ko yeah té ñu bayyi xëccionté bi ak yoy nonu ñu nekk ben da nah, artis yang fa amna ya, talent pekes ye reddi mang fa def do mang fa euh neh nyang ang fa euh wa miru arang fa ñom ay artiste lañ mais dañ wara bolo nek ben hmm. su ko defé euh, eh, eh, musique bi au oh, art bi mëna dem ci kanam ok légui dañ wax ci xëccu bobu xëccu bobu nan la fa démé parce que comme euh, supposons may jël dëkk bu melni ngaay ay dëkk bu melni pekes je crois ñom ñep ci kadior lañ bok waaw légui yow bon bo nan xëccio la motax nga nan euh, xëccu ku ci nek dafa bëgg nek king wala wala question ne eh, dañuy nekk foofu di xëccoo affaire musique mais xëccoo euh, pour man maa nekk si kaw kee moo nekk si kaw loolu la ñu war a bàyyi te ñu nekk benn yeah parce que euh, maa ngi ko am na artistes yoo xamante ni foofu ca PKS euh, du ma turu tur nag dama leen di woo Fitorin xam nga ñuy daw parce que xaw ma mais ñun yëpp dañoo yeah ku ci ni neex ñaang ak waa miroir dañ nekk benn dañu war a King Afro def dom red team ñun yépp dañu wara nek nekk benn bokku nday bokku bay di xati ndo di dóorandoo su ko defé suñu aar bi dina mëna dem ci kanam quoi ya to aussi euh, nit ñi dinañu xam ci euh, euh, ci kaw parce que Pekes dafa roké pour ñu xam nga xam fa artiste yombul franchement yombul ñun ñoo wara liggéey loolu bolo nek benn waaw su ko defee ñu mëna nek ci kanam quoi di lañ jox rendez-vous la 25 tamit. ok légui dañu ñëw ci mariage forcé Euh, mariage forcé sax gis nañ que ni da nga si def euh, featuring ak euh, Zeyna en plus tam la moo tax la moo tax nga nga jël thème boobu bëgg wax si mariage forcé yow boo gisee ma wax si mariage forcé c'est parce que dafa bëri si dëkk bi taf dafa bëri si dëkk bi même temps yi sax gis naa koo xamante ne ni sama xarit la depuis ay temps ñoo doon ànd xam nga mu doon dund ak benn xale bu jigéen Euh, tu xale bu jigéen bi temps lañ ko maye te diggante bi dafa yàgg xale bu jigéen bi ku mu bëgg mayuñ ko ko keneen lañ ko may thème boobu noonu mariage forcé bi foofu la jógee yeah parce que kooku franchement dañoo yàgg lool mariage force bi foofu laa ko jëlee te aussi boo gisee ma def featuring euh, Zeyna euh, son bi moo ko laajte moo laajte featuring ak jigéen ok comme léegi ñu ñëw si featuring boobu nga wax noonu comme da nga bëgg wax da bëgg wax que ni continuer bi moo laaj nga def featuring ak ak ak ak Zeyna. waaw ok léegi sa collaboration tamit ak euh, Zeyna laa bëgg nga wax ma nan nan nan ngeen def ba yéen ñaar ngeen collaborer. yeah Zeyna moom euh, rakki sama xarit la muy Aliou Aliou fay yeah rakam la Zeyna dafa nekk si musique dafa nekk artiste tamit aussi yeah yàgg na si musique euh, génne na ay son damaa déglu son boobu noonu rek son am yooyu laa déglu xam ne kii mën naa def ak moom sound Yeah, parce que voix bi dama ko bëgg franchement. yeah té son bi génn na aussi ñëpp bëgg nañ ko képp ku déglu son bi ci YouTube. promo instant bi bëgg na ko doxalee. ya promo bi euh, euh bo gisé euh, ñu duggal ko ci YouTube bi euh le 17 c'est parce que dañ ko bëggon a euh, lancer. yeah bëggon tamit ñi ñi ñuy dégluwaat ko parce que le 25 c'est euh, événement hmm. Malawi eh, la ko bëgg andi waat eh, avant lool nak dama bëgg gaay yi déglu son bi eh, bay sa xel bu baaxa baax su ko defee boo playback public bi mën la tontu motax ma gëné ko la. ci lan ngay dund ak ñom lan ngay dund ak ñom ci côté musique wala à part musique bi lan lan bon lan ngay dund ak sa wa dëkk. yeah sama wa dëkk vraiment vraiment musique nek fa artiste dafa dafa dafa jafé trop dafa jafé trop mais am gëm-gëm rek yeah. te ñun ñoo war a tax gars yi gëm musique ñun artistes yi ñun ñoo war a tax gars yi bëgg gars yi bëgg hip hop te ñu ngi siy liggéey bu baax a baax bëgg bëgg nañ nag gars yi uh, uh, uh, bëgg musique dund ko moo tax son buñ génnee di ko partager am na ñoo xamante ne sax amuñ YouTube dañ leen di may son yi dañ may wone ma King ah aw ma YouTube te son bi dégg naa dafa neex dugg na fi génn fee xam nga ma jël ko envoyé la ko parce que dama lay comprendre xam ne sama bopp la fay defal autorité yi wala ak lu nga xam ni yàgg na nekk sa xol nga am occasion bi pour euh, véhicule ko léegi nga nga nga wax yeah euh, moo nekk projet bi rek projet bi ñu ngi siy liggéey bu baax a baax pour l' instant dugal nañ ay quelques chambres te aussi mariage forcé euh, maa ngi leen di jox rendez vous clip bi ñu ngi koy waaj bu baax a baax yeah après tabaski dinañ def tournage clip bi din dina gars ñu xaar ko quoi rendez vous la Yeah, inshallah. Rayma pak pak pak pak. Rayma pak. Rayma pak pak. Rayma pak pak pak pak.